yu'ayyunaka bil ilhaad di soxla yonent bi moom Ummul Fadl ñoom ñaar ñoo bokk xeet ay ay mag ak rakk lañ yemul ca loolu waaye bàjjen la woon ci Xaalid ibn Walid yemul ca loolu waaye moom Asma binti Umayd di soxna Abubakar ak Ali ak Jaafar ñoo bokkoon benn yaay doonte bokkuñu waay maa ngi yaakaar ni askan wi kenn yi lu jaxasoo woo xam ni lii kër dëgg dëgg kon su ma nee jami'an al xayraatu aw al fadaa'il bayna yadayha day daal di nekk lu wér ay gëneel la ñu dajale ci ay loxoom moom ndaw si kon xoolal lii ku ko dajale ci ay gëneel yëpp kii borom këram mooy al Abbas nga xam ne Abbas benn bàyyi la woon ci yonent bi te yonent bi da ko doon ndamoo léeg-léeg sax muy wax waxi Abbas Abbas naa ko waaye yonent bi bàyyi la koy wax waaye du ma ko bàyyi kañ dama ne ku am bàyyi ju mel ni yow na ñëw wax loolu la yonent bi daan wax alayhi salaatu wasalaam Abbas balaa muy tuub dugg ci lislaam ndax xamee woon nañ ko fonk dëkkandoo ak di dimbali ay dëkkandoo ku bari woon alal la waaye ak doon dimbali ñi nga xamante ni ñooy ñàkk ak ñiy xiif loolu yaakaar na ni ku nekk ku nekk sa borom kër loolu nga ne yu rëy la doomam mooy xabrul umma Abdullah ibn Abbas xam ne Umar ibn al-Khattab danaan ko yow yi waroo bokk ak xale yi xalaat kaay di toog di bàyyi di toog ndax yow ah baabu bariwul ay at nga baabu tuuti ay at baabu yéex a judd mooy Abdullah ibn Abbas ndax daawul wax waxi gone ndax koo xam ne yow li ngay wax lépp daanaka mbir la yoo xam bàyyi sax lañ ci doon jaaxle keroog ba Umar ibn al-Khattab ne ndax xam ngeen ida jaa nasrullahi lan moo ko tax a jug kii ku nekk di wax ay wax yonent bi laaj Abdullah ibn Abbas mu ne ko dafa ñëw ngir nekk tàgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam te la Umar ibn al-Khattab waxee ne kii kët ëpp na ñu koy bàyyi ci gone yoon te it yemul ci loolu waaye jur na doom ci ñuy wax Abdullah ibn Abbas am na doom ci ñuy wax Fadl tamit la Fadl moo tax ñu naan ko ummul Fadl ñu ne arab yi comme ni ma leen ko waxee woon bu dee góor la abu tuddee ka nga xamante ni mooy ab taawam léeg-léeg nit mën na ko def taawam mën na ko def ku dul taawam léeg-léeg nit mën na am ñaari tàkkantam mën na am ñaari taaw ba ñetti taaw ba ñeenti taaw moo tax ngay gis ci ilmul hadith wala ilmu mustalah al hadith wala ilmu rijal fi jàng hadith léeg-léeg nga gis koo xam ne ay kulliyaat lay am da ngay gis benn waaye ñu jox ko kuliya sàngam jox ko kuliya sàngam ba ñenn ñi seetlu dañuy jàpp ni kii ñaari nit la ba ñett fekk kenn la dañ ko jox ay tàkkantam kon ummul fadl parce que fadl moo nekkoon taawam am na ku ñuy wax Ubaydillah am na ku ñuy wax Kusam Kusam am na ku ñuy wax Ma'bad am na ku ñuy wax Abdurrahman am na ku ñuy wax tamit Ummu Habiba ñëpp ay doomam la ñuy wax ne bu leen jur moom Ummul Fadl moo tax Ummul Fadl ku bari woon na ay neneen kam bokkaloon ndey ak baay di Maymuna bint al-Harith di soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam ngeen ni kooku yonent bi jëleen na ko soxna ginnaaw mooy borom kër ba ba taxali ko moom borom këram dee ci feebar atum juróom-benn ci gàddaay bi yonent bi takk ko alayhi salaatu wasalaam am na ñu mu bokkal moom Ummul Fadl muy Lubaaba kooku moom Ummul Fadl ñoo bokk ndey ak baay Asma moo Ummul Fadl ñoo bokk ndey ak baay bokkut ak Asma ci Asma la bil ayn wa saad ñoo bokk ndey ak baay jigéen ñi ñuy wax Asma moo Ummul Fadl ñoo bokk ndey ak baay wa kadhalika Huzayla moo Ummul Fadl ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñëpp Xaaris mooy seen baay waaye ñi nga xam ne ñoom la bokkal yaay Asma binti Umays nga xam ne Jaafar moo nekkoon borom këram faatu Abubakar di borom këram mu faatu Ali di borom këram. asma moomu bokkut ak asma binti Abubakar ki asma binti Umays la moo Ummul Fadl ñoo bokk yaay waaye bokkuñu baay niki noonu Salma ak Salama ñoom ñëpp Salma ak Salama ak ki nga xamante ni mooy asma ñii ñëpp Umays moom mooy seen yaay moo tax ñu naan asma binti Umays kon borom xam-xam yi dañuy wax léeg-léeg kat nit am na yenn xeeti ngëneel yoo xam ne boo commencé dajale kat bon du la war a mën a yomb te am na sax ci borom xam-xam yi mu arrixu ni ñuy wax ni Zaynab binti Xuzayma al-Hilaliya di soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na sax ñuy wax ni moom Ummul Fadl ñoo bokk benn yaay am na ci borom xam-xam yi ñu wax loolu kon Ummul Fadl lu nit ci ay ngëneelam la bokk na ci mooy bàjjen ci Xaalid ibn Walid xam ngeen ne xaalis am na yéen si boppam sallallahu alayhi wa sallam bàyyi leen jàmbur bàyyi leen jàmbur bi ngeen di tooñ ndax kat moom jaati na ci yàlla bot ci ci kaw ñi nga xam ne mushrikuun yi kooku moo tax Abu Bakrin dafa xool Xaalid ba mu yàgg mu ni ajazat nisaau an yalitna mislu Xaalid dëgg dëgg dëgg dëgg jigéen ñi fi nekk nii tëli nañoo jur doom ju mel ni Xaalid maanaam jigéen ñi mën a duñoo jur doom ju mel ni Xaalid kon mbokk yi lii moo waral ci sunu askan ñun fii ci réew mi ñuy dund da ngay gis mag ñi léeg-léeg bun daan yedd ab nit dañ koy wax ni ko yow ak fi nga bokk yow askan wi boo ci féttéerloo yow rek yaa féttéer yow rek yaa njëkk a bon ci xeet loolu dafa baax ci nit xam kay dafa bokk sax ci sunna kat nag waaw ndax yonent bi dafa jàngale nit xam aw askanam ndax am na yoo xam ne bu la ko waxee kat war naa xam li gën a góorgóorlu sa baay moo fi nekkoon fóoree nangam sa maam moo fi nekkoon nangam nangam sa yaay nii la ma sax léeg-léeg jigéen daanaka yi sax ñu wax ko ci ay jaloore yaayam ak maamam yoo xam ni ah am naa jigéen ju ma xam joo xam ni ba jafe-jafe amee ci sëyal ma toog borom këram toog yaayam toog yaayam dafa wax ci daw yaram ju mel nii yaayam mu ne ko gis nga lu bon lii nga nar a def boo ko defee sunu askan yaa mu ne ko yaa ngi dégg jub mu ne ko diw dóor nañ ko ba wekki buntu këram ah buntu néegam sànni ko bëgg mu génn waaye daw gàccaa tax ñu ne far doon toog bañ defaraat bañ wéy am subhanallah gis nga yooyu dafay def am jom ci nit ki ba tax yow boo doon jub baa nga naan pittéer lu sax da nga daal kenn misaal yooyu nag moo manqué tey moo manqué da nga gis boo xamante ne da nga ko forcé benn rek bu ko defee noonu xamul fu mu bokk xamul ni mu bokkal waaye am na yoo xam ne su ko nit ki xamee loolu dafay def ci moom jom waaye day def ci moom li ñuy tuddee bañ a rus tamit umul fadl kéem taatu suñu borom la woon ndax moom kat dañuy wax ni yaayam ci jëmmi boppam mooy akramu naasi asxaar ci gën a baax ay goro ci kaw suuf mooy yaay ummul fadl xam nga mooy li ma lay wax sànq ni léeg-léeg maanaam baaxaayu fi nga bokk dafay def jeexintal ci lépp fàtte na bonaayu fi nga bokk dafay def jeexintal ci lépp yéen ci yàlla bee tax xëyal li lu baxikum sa jiw bi ngay amee doom na nga tànn tool bi nga koy bayee parce que silib day wax day rabaraat nga am na xeet yoo xam ni maam ci nit yoo xam ni ci xeet yi bonaay laa wax nag waxuma comme ni ko nit ñi àttee ak ñàkk am yarul diine ak tooxi doona boo dégg seen askan def nañ ko yu mel noonu nit ki lu mooy sa nit mën fàttan soxla loolu donte nag tekkiwul ne loolu mooy ku ko juddoo doo mën a baax nga xam ngeen ni kat Moussa yar na benn waay bu ñuy wax Moussa as-Samiri ci biir kër Moussa commencé nekk saay saay Firawna saay saay bi yar na ku ñu tuddee Moussa commencé nekk kon nag léeg-léeg suñu borom def ci biir yi ak yooyu ak kamu naasi ashaara mooy yaay umul fadl ndax dañuy wax ni màgget yi kat moom adduna bi moom ci lañu am moo fi gën a baaxee gor ñu ne la ndax parce que moom moo jur Maymuna tey Maymuna yonent bi moo ko takk sallallahu alayhi wa sallam ak lan moo jur umul fadl te umul fadl bàyyi yonent bi moo ko takk sallallahu alayhi wa sallam moo jur nu mu tuddati Hamza ah Hamza moo tax lépp ki nga xamante ni moom mooy Salma Hamza takk na doom bi ñuy wax Salma ni ki noonu Jaafar ibni Abi Talib takk na Asma binti Abi Bakr te doomam la ginnaaw bi Abubakar takk ko ginnaaw bi Ali takk ko kon solo ci li nga dajale ci ay borom ak kaa solo waaye jigéen ñi léegi bëgguñu goro yi mel ne Abubakar ak Umar ak jigéen ñi bëgguñu loolu xaqat bëgguñu ko de lu kàddu gi dëgg rëy rëy rëy nag loolu mooy li am goro yi mel ni Abbas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abubakar rek naa ko suñu jigéen ñi bëgguñu goro yooyu de xam ngeen yan goro lañ bëgg goro yi jógee Italie ak Espagne goro yoo xam ne goro yoo xam ne ñoo yor xaalis fekk déedéet maanaam jigéen dafa bokk ci li mu war a damoo mooy baax ay goro ndax ñi ngay jox sa doom ñan la kan ngay jox sa doom tey nag al asaf shadid gis waa joo xam day mel ni ndongo rek saa yi ñu sa yëg mayoon doomam nga xam ne bu ndogoon du am bu wooree doom du mu ndogoon kenn du jafe gis nga te bu leen fàttali ba ay gis mu sa yëg doomi amir ñëwoon na di wut si doomam mu bañ ba amir bëgg ko cee xorñañal xaw na ko cee caw ay yar mu bañ biñ ko laajee lu tax nga bañ mu ni su demee dinaa xam ni ci lal yami fanaan lali buur la waaye ngëm yàlla mu laa xam fu mu na allahu akbar est ce que ñun suñuy suñuy suñuy doom ñu ngi sóoraale ci ñoom loolu kon ndaw si nga xamante ni moo mooy yaay umul fadl kat wax dëgg yàlla am na ci ay ngëneel loo xam ni bari na lool moo tax ma ne la ay ngëneel dañ koo dajale ci ñaari loxo te it tax nag moom yàlla dafa barkeel ay doomam ndax doom yu gëm yàlla la yoroon bi shahadati nabii sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi nee na al axawaatu al arbaa maymuna wa ummu al fadl wa salma wa asma binti umaysin mumina yonent yàlla bi nee na ummu al fadl ak maymuna ak salma ak asma binti umaysi ñii nga xam ne ñoo bokk benn yaay ñenn ñi bokk ndey ak baay mu ni mu'minaat xadiis bi imam Nasaa'i sax na ko ci sunan xaakim ci mustadrak ñu jëlee ko ci Abdullah ibn Abbas Cheikh Nasirul Albani rahimahul jaami amul xadiis bu wér kon ba lii de wax dëgg yàlla ay ngëneel la yoo xamante ni maanaam ñoom liñ ko doon dajale dajale ci ay ngëneel terewu sax maanaam dañ doon gën a yóotu lu ko gën a rëy ndax yiw kat moom lu ci waaye àllaaxira xeeb ko kon shahaada bu magal woon bu rëy boo xam ne yonent bi moo ko def alayhi salaatu wasalaam ci doomi ndaw soosu jamono bi nga xam ne yonent bi mi ngi woote alayhi salaatu wasalaam comme ni ma ko waxee woon sànq Xadija dugg ci lislaam jigéen ji jëkk a wuy ci comme ni ko imaamu Zahabi di waxee ci siyar mu ne lam yuslim min annisaai ahadun qablaha yaani Xadija summa baada Xadija amul ku jiitu ci jigéen ñi ku dul Xadija waaye bi Xadija jàllee ci ñëw nga xam ngeen ni ñooñu njëkk ñi mbokk yi am na ñuy gënal de xoolal suñu borom ñu ngi wax ni wassaabiquuna al awwaluuna min al muhaajirina wal ansaar yàlla nee na maa ngi bàq ak a tudd ak a félicité gaa yi nga xamante ni ñoom ñooy ñu njëkk ña njëkk wuy si ci muhaajiroon ak ansaar yi ak ña nga xamante ni ñoo leen topp ci ginnaaw gi ci rafetal yàlla gërëm na leen kontaan ci ñoom ah mu ni waawaaw te waajal leen aljanna yoo xam ne day daw sa suuf ka ay sew ne suñu borom dañ koy sax tak amul génn li lépp li ko waral mooy damaa kontaan ci ñoom mu ni daalika alfawzul azim kon loolu surtout tawba lii kon day wane ngëneel yi nga xamante ni saabiquun saabiquun suñu borom ni ulaika muqarrabuun kon umul fadl daal li ma bëgg a wax mooy wax dëgg yàlla dajale na ci ay ngëneel yu rëy ànd ak lii lépp nag nit ki bokk ci askanu baax tax ko war a mën a baax fekk ndax ñu góorgóorlu du ko jëriñ dara waxoon naa ni xadis boobu nga xam nekk na ci sax ay muslim yonent yàlla muy sallallahu alayhi wa sallam man batia bihi amalu lam yulshaq bihi nasabu ah ku sàggan ba say jaamu yàlla tax laa taate saw askan lu mu foor foor sax nga dab kenn kon bokk ci askanu baax dëgg la da lay digal rek ci imkaaniyaat yi la bokk waaye taxul ñu tiit loolu rek taxul ñu baax umul fadla nag dafa boole ñaar yépp yii jigéen ñi dañ ci war di bàyyi xel bu baax te loolu mooy jubluwaayu waxtaanee duñu saxaaba yonent bi kon xor bu mu fadal ki ko yàlla war sëgal ci borom kër jigéen dafa war a am fiiraange ci ma sëkk bu ko yàlla war sëgal borom kër kan mooy nekk sama bàyyi doom ci nar a jur samay doom ndax bu ñee tànn leen seen jiw yi da ngaa yaakaar ne góor rek mooy tànn aw jiw léegi xam kay jigéen war naa xool kan muy borom kër di tànn ko ñëpp di tànn ka seet bii daa mën di tegal fële bii dafa dagg ca makkan nga tegal fële bii dafa màgg tegal fële bii dafa dafa tegal fële seetal bu baax bu baax li nga tànn ko daal noonu muy def bu màggee ba mu sànni fële bu bu yàqu ba mu sànni fële bu bu bon ba mu sànni fële seet bu baax qualité bi noonu la jigéen ñi doon def démb te it noonu la salafu saalax doon tànnalee seen doom ay borom kër boo ko daal tamit gis ngeen njabootam ñu ko yàlla barkeel la parce que laa shakka ne gis ngeen ñii ñoom ñëpp kulluhunna mubarakaat ñëpp dañuy la barkeelal kon umul fadl jigéen la woon joo xam ni bokkoon na ci ñu mos tuuti ca mbugal ma man sax nag am nañ borom xam-xam yi ñu wax ni bu mu saana romb saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen mbugal dafay jonkan di jooy ndax am na cee mënul dara jamono jooju metti woon na lool jamono jooju mooy jamono ja nga xam ni l'islam amagul doole ji xool nañu la ko bu xatal saxaaba yi sa sallam booba demaguñ Égypte maa dem nañ ba dellusi waaye gàttay ko ci Madina daf daan romb ñi nga xam ne saxaaba yu àddaboon fa tabki li annaha la tamliku min amri shay parce que da ciy mënu dara nga xam nga li gën a metti mooy war a xam dafa ñëw gis nga aaya ji bu mu wàccee Abdullah ibn Abbas da ni man ak sama yaay ni ca lañ bokk te noonu la ko imaamu Bukhari indee ca kitaabu tafsir ci Sahiham mooy wa ma lakum la tuqatiluuna fi sabilillahi walmustadafina min arrijali wannisai walwildani alladina يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا سورة النساء sunu borom mu ni waaw yéen lan moo tax du ngeen xeex ci yoonu sunu borom ah ak ñi nga xamante ni dañoo néew doole ci góor ñi ak ci jigéen ñi ñi nga xamante ni ñoom dëkk mënuñoo xeex waaye ñoom ña ngay def seeni ñaan la ñuy ñaan mooy yow sunu borom dëkk bii dëkk bu dëkk bu ay tooñkat nekk dëkk bii kat ay tooñkat ñoo fi nekk dañoo bëgg nga génn ñu dëkk bi ñu seeti bu tooñkat nekkul te it na nga ñu defal ndimbal bàyyi ko ci yow te it ñu ngi lay ñaan nga nekk suñu péej Abdullah ibn Abbas mu ni kuntu ana wa ummi min al mustadafin man ak sama yaay day ci mustadafu yi lañ bokkoon ndax wax na dëgg parce que yaayam yéex naa gàddaay lool ndax la ko waral moom mooy borom këram dafa yéex a tuub am ñu ne yéexul a tuub daa tuuban di ko nëbb ala kulli xaal wax lu bari na ci waaye lu mën ci am yéex naa gàddaay loolu bokkoon na ci li ko metti lool ndax lan moo tax saxaaba yi dem jege yéen safaram di tànk ci rabine bu sell bi moom mu nekk fii ci Makka doon de Makka dëkk bu baax la waaye yonent bi nekk fa alayhi salaatu wasalaam xam ngeen Abdullah ibn Abbas yonent bi faatu na mu ci Makka la dëkk na foofu mooy ak ak wàllam Abdullah ibn Abbas yonent bi faatoo boo seetloo ak dundam Makka la mu ci féete moo nekkoon fóoree Makka ci parce que delluwaat na fa nga xamante ni fa la cosaani baayam ak i këram ak i toolam yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu digalee jullit ñu gàddaay Ummul Fadl mënta gàddaay ndax li tax mënta gàddaay mooy borom këram ñu abba ñenn ñi dañ ñu tuubagul ñenn ñi di bëgg a tuub na waaye daf doon nëbbu lislaam su ko defee umul fadl am ak njàqare lool parce que mënta gàddaay bàyyi borom këram te it mënta nekk waaye kam na xoolal jigéen ji ngëm yàlla gi mu am borom këram nekk ca leneen lu dul islaam waaye mu fex ba doon te lu am solo boobu bokk xam ngeen ni borom kër ak soxnaam mën nañoo wuute léegi jëmukaay léeg-léeg nga gis koo xam ne sunna la dund suñu kër du ca góorgóorlu suba ak ngoon borom këram gën loo xam ne daal kenn xamul loo koy tuddee te loolu danger la parce que góor mooy yor xawaam yi yàqal mu xëcc soxnaam day yor waaye gis nga jigéen ñi ni ñu ragalee woon yàlla ak góorgóorlu ko dëgg bi dafa yeggoon ci ñoom ñoo doon def jeexital ci seeni borom kër bal nag boo toppee siira nga gis ay téeméeri téeméeri jigéen yoo xam ne min day ni ñii ñoo tax seeni borom kër tuub ñee seeni borom kër tuubut waaye mënul dara ca leen doon dund ñii par ñoo tax sax seeni borom kër nekk ay borom xam-xam yaakaar naa ne Ummu Sulaym rek Abu Talha def na soriwul kon loolu bari na lool law ci li Ummul Fadl ci njàmbaarte gi ci góorgóorlu gi ci ragal yàlla gi te sellal gi ci topp njàngale yonente bi alayhi salaatu wa salaam yéen yoon na ci Abbaas tuubut waaye daa mel ni ku tuub tuubut waaye daa mel ni ku tuub lu ko waral mooy demoon na ba dominer ko def ci moom ay jeexit bokk na ci li koy firndeel kaab ci ijmaali mooy nit li ci qissa bay'atul aqaba thaniya mooy yonente bi xam ngeen ni balaa moo dem Madina waa Madina ñëwoon nañ di dajeeg moom ci aj ka biñ dajeeg moom ci aj bi mu gaaral leen l'islam gaa yi nangu ñu siñanteeg moom ay accord yoo xamante ni day ñëw Madina bu ñëwee danañ ko dimbali jàppee ko comme seen bopp ci tënk bu gën a gàtt ba loola amee yonent bi ñu leen bàyyi leen ba xaar nga xam ne ñu ñëpp tëdd nañ ñu dagee bañ tollee ba saaji ko di kaat nee na na ta sallalu ta sallalu xotoo na na xeeti picc yoo xam ne bu ñuy def ne day dénkan dénkan yi dañuy ku bëggul ku la dégg nee na ñun ñu ngi yor mocceeku ndànk yollas yollas di yollas yollas yi ndànk di génn ci guddi gi mu ni kunna salaata wa sabuuna rajulan matoon nañ juróom ñaar fukk ak ñett soixante treize personnes mu ne wa minna imra'ataani min nisaa'ina am na ñaari jigéen yoo xam ne suñuy jigéen lañ bokk ci xaaji guddi gi allahu akbar xaaji guddi gi ana seeni borom kër ana seeni doom ñu war leen a yeetam ana seen coono yi yéen doo ko tëj ñun xanaa yu góor lañ déen ay jigéen lañ waaye ñoom it nag yàlla taxaw na tamit nag sabran min allahi wa ridwaanan ñoom it lii gaa yi bëgg lañ bëgg dund ko fi yàlla gërëm leen kooka mooy lu say ba tamit ci kaa kooku mooy ummu atiya ak ummu ammaara jàmbaar joojee am na jëleen jigéen ñi ñoom asma binti amr ibni adi tamit bokkoon na ca ñoom ñëpp bokkoon nañ ci ñi teewee ñoom ñett ñi ñaar ñee bokk ci seen askan ak kii nga xam ne bokku ci seenu xeet waaye ñun ñett ñi gëm yàlla ñi lañ bokkoon nee na bi ñu dajaloo ñu yollas yollas ba dajaloo nekk juróom-ñaar fukki nit ak ñett nee na ci leen jékki-jékki rek seen yonent bi ñu waaye li leen jaaxal mooy bu yonent bi ñu saxal ñu ànd ak abbas te abbas tuubagul secret boo xam ne dañ koy nëbb nit ñi nëbb gi yekk ci ba dañ ko def xaaji guddi ay trois heures du matin wala quatre heures du matin wala deux heures et demi ci guddi gi ndax bañ nit ñi xam ko ba pare ñu seet koo xam ne ak yéefar la di ko ci boole ça veut dire que kii kii bëggul waaye daanaka am nañ ko ba noppi ndax xam nga nit moom léeg-léeg mën naa bañ a yegg si waaye daanaka mu ci buntu bi booy yëg mën nga kaa bañ a boole waaye tamit booy xaaj ci tamit doo ko boole si ni ngay xaaj ci parce que yegg si na ba noppi daa am lu ko lu ko téye mais nag yàlla ñi leen jaaxal mu ne Abbas moo njëkk a jël kàddu mu sa dugg nit la sax tuubagul lool mu yëkkati kàddoom mu ni tey yéen giir gii ci Ansaar muy Xasraj ndax booba ñoom ñooy ñu ñëwoon mu ni leen yéen ñii kat xam ngeen ni Muhammad day ku ñu fonk la sallallahu alayhi wa sallam ku ñu jox la cër fi ñun te it nag ku ko mënta aar luñ ñii di ay mbokk mën nañ kaa aar kon nag li ma leen di seedeloo mooy su fekkente ni wér na leen ni bu ñëwee Madina di ngeen ko sàmm jàppale ko yërëm ko dimbalee ko ba daa ko jàll su boobaa suñu xel dal na dem leen ànd ak moom waaye su fekkente ni su ngeen ko yóbboo Madina du ngeen ko jàppale bàyyi leen ko fii di ngeen xam ne ay bokkam ñu koy jàppale ñu allahu akbar xutba ji di bu ko dégg da nga defee ne Abubakar Siddiq moo doon wax te moom tuubagul moo lay wan ne kon ndaw si kat borom gërëm soxnaam am na lu mu def ci moom nee na bi loolu amee ndeysaan yonente bi daal di kontaan lool sallallahu alayhi wa sallam ca wax ja ñu daal di gis kanam gi commencé di leer noonu kon ci la gaa yi daal di seede ni ñoom kat parce que yéen nañoo jàppale yonente bi alayhi salatu wasalaam lépp lu leen di seen i mbokk di laaj seen dérét mbokk laaj dérét yonente bi alayhi salatu wasalaam jaral na leen lu ko raw loolu kon ummul fadl def naag kat ba yonente bi gàddaaye alayhi salatu borom këram di abbas ba am ñu ne ginnaaw sulhul hudaybiya bi nga xamante ne yonente bi alayhi salatu wasalaam ñëw na ca Makka nag doon def omratul doon def omra omratul qada mooy omra jooju mu doon fay mu am ñetti fan ci Makka ca la labataane soxnaam soosu ñuy wax Maymuna nga xam ne moom Ummul Fadl ñoo bokk ndey ak baay ndax xam ngeen ne Maymuna dafa amoon borom kër bu ñuy wax Abu Ruhm ibn Abdul Uzza Abu Ruhm ibn Abdul Uzza ci kéefër ji la dee Maymuna waar na ko ba sonn mu dëgër bopp rek ba dee ci kéefër ji bi mu dee ci kéefër ji Abbas ni ko comme yow maay denc ci sa mag xam ngeen Abbas moo doon denc ci Ummul Fadl te Ummul Fadl moom Maymuna ñoo bokk ndey ak baay mu ne ko comme sa borom kër faatu na te man maay denc sama da ngay ñëw seeti sama kër la tax wax ko mooy mbokkoo gi ñaari koy gëm yàlla gi tamit noonu bi nga xamante ne yonent bi ñëw na jox ko umul fadal ak abbas ak yi demee noonu ñu xamee ndaw si kat borom këram faatu na te fekk ab yéefar la woon ci la daal di yonent bi labat sallallahu alayhi wa sallam ndaw soosu di maymuna ci la ko yonent bi takk alayhi salatu wasalam loolu tax ñu ne la kon maymuna bàjjan la ci kat bàjjen la ci Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas loolu tax nga gis xadiis ñu naan daana fanaan ci biir néeg daana fanaan ci biir kër yonent sa sallam ci biir néegi may muur a defee kër daa ko fa la ko waral mooy kër bàjjenam la ñëw su ko defee booba nag keneen daal di gàddaay moo tax ñoom kenn gàddaay bi seen waa kër dafa def te loolu néew na lu am ci biir saxaaba yi Ummul Fadl ak Maymuna ñu ànd ak Abbas ak yonent bi ak gone yaag ñoom ñëpp ñu tàkkee daal di yóbbaale ñoom ñëpp ñu dem ca Madina fa nga xamante ni fa la yonent bi nekk alayhi salaatu wasalaam kon lii boo ko xoolee da ngay xam ne Maymuna kat ab daawaam Ummul Fadl kat ab daawaam jàll na waaye nga dee yu rëy la doon bal sax nag bul fàtte ni subhanallah subhanallah kon xoolal yi jigéen ñi ñu meloon xam nga Abdullah ibn Abbas lan moo tax mu doon fanaan ci biir kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy yaayam da koy wax ni ko xam nga am na jaamu yàlla yonent bi yoo xam ne koy uji na koy def kenn du ko gis léegi da ngay dem nga nga wax sama kër bàjjen laay fanaan xam nga xale bu diggéen te sama kër bàjjen laay fanaan subhaanallah bi muy ñii mag daal dëgg dëgg ay kiim tamit waaye seen gone yëpp ñuy gone rek ñoom it lu tax ngir bu fanaanee ci biir néeg bi day xam nan la yonent bi naan la ko sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ba yow mu yonent bi kat di heure sàngam la jub di naafile bi muy naafile sax man jub naa di fekk di ko naafile ma ñëw taxaw ci côté lay jooram mu daal di may yëkkati jàllale ma ca gannaaw ndeke jaarale ma sama kanam parce que boobu saakir la war a doon mu jaarale ma ci ginnaaw teg ma fii ma taxaw kon yooyu yëpp mu di ko nekk ni fekk jigéen ñi ñoo doon def yu mel noonu jubluwaay bi ngir lan ngir mën a am lenn ci jàngale yu yonent bi alayhi salaam yi nga xam ne dafa xaw a ndax mbir mi yeggoon na leen foofu kon Abbas daal di di nu mu tuddati am ay jeexintal yu rëy a rëy ci lii nga xamante ni moom la Ummul Fadl doon def ci daawaam waaye xam ngeen ne Ummul Fadl kat jigéen la woon joo xam ne kaanat shaghufatan bi talabil ilm xëroon na ci sàkku xam-xam ma al asafi shadid xoolal ma baalu nisaa ina yow suñu jigéen ñi tey tey moom li may wax bis bu ne ñu baam ko te ba léegi rek fajuwul laxdari bi gën a tuuti tey mënoo gis jigéen ji la ko jàngal arbaay rek naw yi mënoo gis jigéen ji la ko jàngal daanaka alquran du set ne teel la sax mënu gis jigéen ji la ko jàngal dafa nekk te moo ne jigéen ñi dañ doon am ay fóore yoo xamante ni ay ulama lañ doon doon ay borom yu xam-xam di jàngale ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalam ak ci biir jamono yonente bi alayhi salatu wasalam law ci bokk na ci li koy wane mooy waxtu woon la lu bari ci alquran ak sunna boo demee ci buxaari muslim xam te dara solo nañ fay xadis yu bari yoo xam moo ko solo bal nag wax dëgg yàlla yaaye abdullah ibne abbas nag war naa mel mel ni xam ngeen ne léeg-léeg jigéen doomam day def jeexitalu ci moom borom xam-xam yi dañuy wax ne gis nga jigéen ci gëm yàlla muy góorgóorlu ci njàng jàng alquran ak li doon rawatina lu toll ci gën ji yooyu dafay def jeexital ci doom yi nar a tudd loolu dañu ci jeexital ci doom loolu dafa daan dem nañ ba waxuma ne borom xam-xam yi di ko wax waaye médecins yi sax dem nañ bay xam loolu léegi ndax jamono jii nga xam ni léegi da ngay gis xale bu ñu naan dafa am juróom-benni at mokkal alquran wala juróomi at adduna bi boo seetloo ñi nga xam ne ñooy gëstukat yeeg dañuy dem ba dañuy jaaxle ci loolu waaye ñi nga xam ne ay médecins lañ seen xam-xam màcc ci doomu aadama ak ay ay séditam ni muy jégalu am xelam ni muy màccee dañuy wax ne yu mel noonu nga xamante ni parloog yaay ji la dafay def jeexintal ci doom bi ak li mu doon déglu li mu doon dund ak ila axira ma al asafi shadid mu dégg li ñuy dund ñun. kon Abbas mi ngi noonu ñenn ñi nee nañ tuuboon na ñenn ñi ni tuub waaye waa ala kulli lu mën ci am li gën a dëgër moom mooy dafa tuuboon di ko làq maanaam gëmoon na yonent bi alayhi salaatu salaam waaye dana làqatu parce que lu tax benn ci kilifa yi gën a mag la bokkoon ñaareel moom mooy am na bépp boo xam ne yoon na ko ndax léeg-léeg day faral di am sunna si sax léeg-léeg am ci léeg-léeg nit ñi bokk fan boo xam ni boo ko xamee faw nga xaw a làqatu tuuti doo ko feeñ nga xaw a am si doole lu tax waral mooy fitna yi mën nga kaa bañ a dégg léegi demoon nañ ba yéefa yi sax ñu ngi sikk sàkka Abbas dafa gëm yonent bi wala gëm gaa yi ñee leen fàtt ma ba dara nañ leen fàtt bu badaree dinañ xam ba xam moom yonent bi la gëm wala gëmul yonent bi alayhi salaatu salaam badar jot nag gaa yi fortante ci seen biir ni ñoom ñëpp ñëppay dem badar xam nga ku dem badar di xeex ak yonent bi saa biir mooy kon gëmoo léegi ñu ngi di testé Abbas Abbas génn malgré que dañ ko forcé ndax noonu la ko yonent bi waxee alayhi salaatu wasalaam noonu bi mu génnee yonent bi woo saxaaba yi ni leen ah xeex bi kat am na ku ci bokk te bokku ci xeex bi am na ku ci bokk te bokku ci mooy Abbas sama bàyyi ku dajeeg moom bul ko rey bàyyi leen moom dañ koo forcé saxaaba yonent bi nee nañ ñu xam loolu su ko defee ni daal di dajeeg ku dajeeg yonent bi alayhi ku dajeeg Abbas rek daal di koy bàyyi ni fii bu kenn rek ndax yonent bi dañ koo forcé waaye lay muskila bi nag mooy dañ koo jàpp-jàpp lii muskila bi mooy dañ koo jàpp-jàpp léegi biñ ko jàppee ñaar ndeysaan abil yusru abil yusru saxaaba bu màgg la mooy nettali nee na gis naa Abdullah ibn Abbas keroog Badar mi ngi taxaw mu dafa jooloon man ndeysaan ñu ngi wax pour que annabi salam ñu ngi dañuy xërit di taxaw kon kan la woon joor ca kaw nga xam ne boo koy xool dafay dégg noonu Abdullah ibn Abbas noonu noonu la Abbas meloon ne la mi ngi mel ni fukk état bu taxaw nee na maa ngi ko gis ndeysaan mi ngi taxaw wa ay ñaata tasiru faar ñaari bët yaa ngay sotti rangoon te kilifa bu day ni moom di bàyyi ci sa salam li tax la ci ay ceeb yi yabax yabax yi dem loolu dafa metti trop ndeysaan Abi Yusuf nee na ma ne ko yow daal dëgg dëgg nag yow daal dëgg dëgg yow Abbas yow nag yow li ngay def lu mu doon Abbas yow yow kii ni sa doom yow ngay bàyyi sax ngay demee di ànd ak yéefare ngay ñëw di xeex ak sa baay li ngay def nii lu mu doon nee na mu ni cekk rek tontu ma nee na bi loolu amee ma daal di koy jàpp andi ko ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam bi ñu yegsee Abil Yusuf ni maa ko jàpp Abbas li ko jàppoo ma de jàppoo ma keneen dama jàpp ku dul yow nee na bi loolu amee yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ah kon nga xanaa ab malaaka moo ko jàpp jébbal la te effectivement loolu mooy li am ndax Abil Yusuf nee na man damaa jékki-jékki ba mu yàgg mu mel ni benn waay bu ñu koo xam ni moom yoon na ca kaw rafet gisuma ko avant xaw ma fu mu bàyyi ko bi mu naan ñett xaw ma fu mu jaar mun naa def na daal nag xaw ma ba yëg rek mun naa lii moom def ko ci benn école fii laa ko fekk ñu tegal yéen ci yàlla bi ni ko yàlla moo yebal ab malaaka bu tedd mu yombalal la ko ci say loxo pour bu ko tedd loxo allahu akbar xool loolu ci fekk booba ñu ngi sikk sàkka ndax ci ak tuubam am na wala amul loolu li muy wut rek moom mooy gis nit ki gëm yàlla bu nekkee ci moom yàlla dina ko dimbale ak su mën ci nekk moo tax mu ne ko laqad aanaka allahu alayni malakun karim malaaka mu tedd moom la yàlla yebal mu ñëw daal lay dimbali ci nga man koo jàpp keroog bi nga xamante ni dañoo jàpp Abbas ndeysaan guddi jot fekk Abbas am ca chaîne ya yonent bi alayhi salaatu salaam nelaw saxaaba yi di ko xool di ko xool nelaw kenn ci saxaaba yi di ko waaw yonent bi yow lan moo tax nangu ko nelaw mu ni oo ci sama bàyyi ba ca chaîne ya moom laa gëm tamit moo tax ma nelaw ci la saxaaba yi dem daal di koy yeewi nag daal di koy indi ci la yonent bi doogu tëdd sallallahu alayhi wa sallam nelaw kon Abbas foofu nag bi mu amee nag ginnaaw si loolu nag ci la mbir mi rek tàmbalee fépp nag léegi nag wax dëgg yàlla ñu xam ne nag kii nag moom li mu nekk kon wax dëgg yàlla yaram si la gën a jege ndax gis ngeen ca keroog bay atlaa xabat saani gis ngeen tey yëpp ay bir dañuy firndeel ni moom kat gëmoon na yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye loolu lépp nag mi ngi nekk ci jeexinte leg góorgóorlu umul fadl wal fadail umul fadl jigéen la woon ci jàmbaar jigéen la joo xam ni xam nga léeg-léeg boo déggee jigéen ci man góor sax ñu koy waxal ñenn ci yow ay ree sax dalay faral di jàpp wax dëgg yàlla jigéen joo xam ni yow daanaka perli ci wéy ndax nee dooma saxaabu yaa de waxuma la sax saxaabu yaa de taabi taabi yaa yi ah ñooñu ñu lay waxal daanaka waxi waxi li wolof yi naan aw dig daal la fay ñuul ak ñàkk xam nga nit moom daanaka moom ku mu ku ko sut rek ñu ne ko yaay ñor fekk déedéet ñi mën laa sut fekk ñor loolu mën naa am mooy aw dig la fay ñuul moo dig ñàkk loolu jigéen la woon di jàmbaare bokk na ci li koy wane Ikrima Mawla Ibn Abbas mooy nit li nee na Abu Rafi' Abu Rafi' nee na man day ab surga laa woon ci Abbas ibn Abdul Muttalib nee na suñ kër gi nag këram lislaam la woon ndax tuub na ma tuub Umul Fadl tuub gone ya tuub ak ñeneen ak ñeneen waaye Abbas nag li ko mayoon sens mooy ay mbokkam dañ ko war a garal dañ ko wér woon respecté ko parce que kilifa la dañ ko la mu doon ca kaw am boole bari xaalis ah nee na bi loolu amee nag waaye nag kaana yaktulu islam daf doon lëbb lislaamam bi di ko lànq bu bari woon alal la léegi mu ni Abu Lahab keroog Badar dafa tardé xam ngeen Abu Lahab demul Badar waaye ñoom ku demul Badar rek da ngay yeble ndax Abu Lahab demul waaye dafa yebal alaa ah ibni Hisham ibni al-Mughira moom la yabal ni ko demal ma te it nag ñeneen ñi demul ñëpp dañ doon yabale ku demul rek da ngay am koo yabal ni ko demal ma wala ni yow da ngaa am gàtt nee na bi loolu amee moom Abu Rafi'a mu ni man nag yàlla def man damaa tuuti woon lool dafa nii woon doole day sax dafa nit ñoo xam seen bind amul doole nee na dama doon yàq ay këll da yàq ay këll ay këll la ki leget nee na bi loolu amee ma toog ci pegg kaaba gi benn bés yëpp samay këll ki leget rek seen abu lahab muy ñëw nee na bi muy ñëw boo ko xoolee mu xaaban xaaban yi ñëw ci nga xam ne ko bon a ngi ñëw ak tànkam yu bon nee na mu ñëw ba jege ma moom it toog war ko gannaaw nee na fi mu toogee noonu rek mbooloo bi waaw këll di ñëw di abu sufyaan abu lahab waaw kay kii daal xaar mu ñëw nekk di ma keroog badara mu nekk abu sufyaan daal di ñëw boo fekk tuubagul daal di commencé di ko nettali mbir ma nam demee badara Abu Sufyan mu ne ko man daal danaa xam ñun ñu daal Badar Badar daal sa waay ñu daal ngam ngam maar la mu defoon rek nekk daal waajoo ñëw ba ci fekkam sëgg ni ko duma ma mu ne te booyee ko kàccale ndax ay ponkal ñoo ñu doon xalaataata dóor dóor yu métti yoo xam yow doo xam ponkal fu mu bàyyi Abu Rabi mu ne ko de malaaka yaa yéen bi nga ne comme de malaaka yaa rek Abu Lahab sax ko prophète yàlla xam nga loolu dafay métti allahu akbar wax na dëgg de wax na dëgg malaaka yi la ponkal yi toll ni ñoom Abu Lahab ak seeni mbokk te xaalis ñoom ñu bokkoon ca ah muy dañoo mel ni ponkal noo xam da ngaa ñëw ba ci sa kanamu noonu rek tëdd def taw mu ne ko mooy dama yegg gaa yi de loolu du yàmbare de waaye dañoo mën ay ponkal yoo xam ne da ngay jékki-jékki seen ku la ndax nga daal ndox moo doo gis kenn yow doo xam ne ci la nga fan la jóge Abu Rabi mu ne dafa yëkkati sama këll ba ci seen ma ne ko sama mooy buy buy baax loolu rek daal kon de malaaka yi la rek mu daal di xàcc procès boobu bu ñu ma dóoree tipp la ma def rek nga yem ci dafa néew doon nee na yemul sa loolu mu daal di ñëw ciib ma jëlu ci de taxat mer mi ndeysaan li ko naqari abu rafe tegu ko ko loolu xolof yi wax li la naqari tegu ko kii li ko naqari abu rafe tegu ko nee na mu tiib ma di ma dóor dóor yu métti yoo xam ne foofu laa naroon a jaare def àllaaxira ndikk may mu bumul fadal man koy si xam ngeen ñu jigéen yi tuddee kudd loos kudd loos moom la umul fadl wiiri jël ko rek ñëw rek sambañ ko ko ci ci ci ndox bi mu ko pëcc boobu rëy rëy boo xam ni subhanallah xam nga xaañ xaañ boo xam ne dañuy tay ba yegg te yàlla xaañ mu métti abu rabia nee na garab bu duloon umul fadl foofa laa jaare def allah nga xam ne ni ku néew doole koo xam ne dañu laa dóor benn projet nga yegg suuf kooku bu la tiimee di la dóor di tolli wax da ngay dee ah waaye nee na umul fadl bi mu jëndee ko dugg loos rek ñëw rek fekk ko rek yéen ko ko ci ndox mi affaire booba moo yore góom góom bi ñuy tuddee góomu robaale man sax mu gën koo garaaw na ndax góomu robaale mën naa bañ a wàlle waaye góom bi aadata lañ koy tuddee borom xam-xam yi dañuy wax ni moo gën a garaaw sax peste benn yàlla boroxal na ko te la la ko doon metti dégg na ko te mooy li am ñaareel mooy kam doon dóor dóor bu ko gën a metti ñëw na ci kawam ñetteel bi mooy Abu Rafi ne ne juróom-ñaari fan lan defee nga waaj a dem Allah ndax góob boobu di góob bi wullee affaire bi di di infecté di infecté di infecté ci juróom-ñaari mu dee gis nga ni mu dee subhanallah xoolal yàlla mu lay toroxal yàlla da ko toroxal ba ay doom sax nanguwuñ koo suul ndax ñeneen dañuy bañ ñu laal ko bu wàllu ñetti fan lañ ko bàyyi ba muy ndëpp ci biir kër gi benn waay moo ñëw ñu yéen ngeen du ngeen góor yéen seen bàyyi ak ni ni ni ni ngeen ko ormaale ak ni mu leen bëggee woon mu dee kenn la ko doon diine mais dañu waxee loolu ci la bàyyi loolu jël seen bàyyi jël nga ci bant di ko bëre ku mbëre daal xam ngeen gunóor woowu ñu doon mbëre ngaan ci bi salte yooyu ñuy def ñu di ko bëre di ko bëre ko ci montagne rek nag di jël ay xeer nas na sal ko ci sangu braakol sangu braakol mais damañ koy sang kenn nangu ko la ñu ngi bañ mu wàllu rek ci seen bàyyi la gis nga yàlla bu ne tabbat yada abi lahabin wa tabba kii daa torox fii ci àddina balaa am àllaaxira te benn borom xam-xam daa xool tabbat yada ba mu yàgg muy dëgg dëgg yonent bi su ma amuloon lenn lu ma koy dëggale lu dul tabbat yada rek dem naa ndax xoolal waa yoo xam ne mi ngi dund yéeroo ko yonent baa ngi dund su ma la baaloo ko ah yàlla ni ko yow sawara ngay def xam nga ne Abu Lahab bu tuuboon rek tabbat yada yàqu Abu Lahab bu doon tuub rek tabbat yada yàqu ndax bu doon tuub mooy kon yàlla li mu wax loolu nekkul lool subhanallah te suñu borom li mu wax loolu lay waaye l'islam ñëw ba ci ay feneen dara te mën ko fexe ba tuub wa yuridu llahu an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka annama yas'adu fi samaa moo ki gindee ko yomb ci wallahi ku gindee ko santal yàlla da nga yaakaar ne affaire yi di ko dégg nii rek wala dugg ko rek wala gaa yi nekk ci mooy tax nga ñëw ci déedéet déedéet yàlla moo la ci boole nga bokk ci rek mu ne su borom boole nga doo bokk mukk gis nga ñett dañoo woon badar ak Uhud ci yéefar yi ñu ñu la gën a dëgër foppa ca nekk ñoo xam ne ñi nga xamee ne yonent bi li muy wax dëgg la ah wallahi bal ñoo la gën a xam sax am na ci ñoom ñoo xam ne ñoo la gën a xam ni wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa yàlla muy dañoo bañ de waaye xam nañ ni xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yónni gis nga ndeysaan te yàlla woowu leen moo tax jindeeku mbokk yi jindeeku ak am solo al allaama ibnu taymiya daa xool ihdina siraat al mustaqim ba mu yàgg muy dëgg dëgg fatiha fatiha la la ca gën a soxal yow miy julli mooy ihdina siraat al mustaqim mu ne xoolal ñaata yoon du koy baamu si julli gi ñaata yoon du koy baamu si bis bi te ba léegi doyul de ndax da ngay demaat ci ñaari sunna yi hidaaya ngay ñaan hidaaya ihdina siraat al mustaqim yàlla ñu di ñaata yoon du koy ñaan ci fatiha maa la safi shadid ñun nag buñ leen ihdina xamuñu sax ihdina la muy tekki moo tax suñu julli yi muy saan yow xam nga kiy ñaan lan ihdina sirata mustaqim kiy ñaan di xam li muy ñaan lan la ko muy gën a def concentré moo tax xanaa pour gi dem mbokk yi ma ne leen gis nga boo seetloo mocc ak mocclu moccal sa bopp lim gënee mocclu dafa dafa jéggi dayoo sax ndax am yéen a ma gën a xam ni waa ji feebar tiim ak ñeeri ñeeneen di ko mocc di yëg muy metti laa xam li muy wax dana defaat parce que métti waay tax tabarru ak yi ngay def ci yàlla day gën a yokk méttituwaa tax da ngay ay xaw a sori àddina dellu ci yàlla méttituwaa tax li ngay wax dana yitteel ndax nit bu jëf lu ko yitteel wala mu wax lu ko yitteel da cay bàyyi xel waaye dama wax ni yooyu daje ci yow mi moo tax solo est ce que wér na dana daje ci kay moom jaar kay moom jaar lii parce que toll fi nga toll man na faa toll man na faa bañ a toll moo tax moccal sa bopp moom laa chaque moom mooy appali mooy nit ki bu amee man mënul nag mbokkam doo koy dimbali man sa taal yoo ay na axaaru fan yoo ay na ku mën a dimbali sa mbokkam jullit nag ko dimbali kon lii ay mbir la yoo xamante ni yu rëy la umul fadl benn bis daa tudd guddi mu gént xam ngeen ni gént comme ni ma leen koy waxee ci kéemtaani suñu borom yi la bokk dafa gént mel ni daa am lu taggee ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci biir kër allahu akbar mu yeewu ñëw ci yonent bi ni ko ah man di gént ma gént moom loolu ndax dees na ko nekk li sax xam nga loolu dafay xaw a trop musiba ndax li ma gént sax dees na ko nekk li yonent bi am na ci li lu mu doon mu ne ko man damaa gént ni mel ni daa am lu taggee ci yow ñëw sama biir kër yonent bi reetaan alayhi salaatu salaam ni ko kon ne Fatima doomam gi ñëmb bu amee doom góor lay doon te bu amee di ko naan loolu lay tekki allahu akbar xam ngeen ni yéen sax la mbirum gént daf cee kéemtaane woon mbirum gént daf cee kéemtaane woon an koy wax mbokk yi ci njariñ yi nga xam ne mën nañ koo jàngee ci suuratu Yuusuf gis ngeen suuratu Yuusuf bi muy wàcc dafa fekk saxaaba yi xam ni yonent bi ku mënoon firi gént la te dàmbale wax yoon ca loolu la gën a feeñee comme ni ko Aïcha waxee ci kitaab Sahih Bukhari su leen yàlla wàccelee saar woo xam ni ka ko tudd mooy Yuusuf te Yuusuf kat ay mbiram la ngay tàmbalee ca gént ndax fukki biddiw yëpp géntoon ak weer nag weer waa gerte ba di ko sujjootal kon gént ak waa ji ñuy nett ni daf ñuy gën a joxaat courage ci foofu gént ak waa ji jàkkaar ma ne leen yooyu comme ay juróowaay la yu am ci xissa bi ak munasaba bi saxaaba yi toll ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni am na ca ndax xam ngeen ni Yusuf dugg na ca teer ba génn dugg ca kaso ba génn daal na nekk wóor yeneen dafa dugg ca xuntu ba génn dugg Madina génn daal di nekk jiite waa Madina yëpp ni ki noonu tamit boo seetloo yonente bi alayhi salatu salaam ay mbokki deretam ñoo ko doon fitnaal muy metti ba saxaaba yi bëgg a révolté ñu wax xissa bi Yuusuf nga gis Yuusuf ay mbokki deretam ñoo ko jàpp sàppal ca biir teer ba te ñee bokk ak moom ndey ak baay kon nga fàttali nga jàppoon moo tax alxuraan mbokki dafa kéemtaan jamono bi muy wàcc dafa tombee tombee boo xam ni maanaam li bokk na ci li tax suñu borom tuddee ko ahsan nahnu naqussu alayka ahsan kon ndaw si muy umul fadl ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax loolu nga xamante ni kooku ci sangi ndawi àjjana yi lay bokk maanaam ci sangi ndawi àjjana yi lay bokk moom ci nga xamante ni moom mooy Xuseyn noonu umul fadl toog ab diir rek ndaw si daal di am doom bi mu amee doom yonente bi tuddee ko Xuseyn ci la ko daal di indi ba nga xamante ni mooy ci këram moom daal di koy nàmpal mu daal di firi gént ak yonente bi alayhi kon umul fadl yàlla baaxe woon na ko ci ay ngëneel yu bari comme nii ma la ko waxee nga xamante ni kat bokk na ci ñi nga xamante ni yàlla baaxee na leen ci ay tawfiqaat lu rëy waaye bokk na ci la cër gën a rëy mooy mooy yaayu loolu rek kenn ku ci nekk ci ñun war na cee bàyyi xel rawatina soxna yi rawatina soxna yi allahu akbar ban façon doom laa bëgg a jur loolu dañ koy préparé de da nga yaakaar da ngay bàyyi ba nawet bi jot nga jub sa matinu jiwoo sa matinu raadoor say gopp ak ci amérique yi moos moos dem ca ñax na ñëw rek da waay jël sa dugub ji wàq suuf aari waay jël dugub nga naan doo am dara tus nga du am dara lu baax doo ko kon nekkete baykat bi bu noor jotee ci jamono bii ñu toll nga xam ne ñi ngi naan kat daa mel ni ndox a ngi xeeñ moo demee ci àll mën la ñuy wax ndox a ngi xeeñ day toll jamono joo xam ni ngelaw lii ñëw climat biy changé day mel ni ndox mooy xew da ngay dem ca àll ba yóbbu sab rat ah yóbbaale sab roq yóbbaale sa jaati gajji ngeer ya salan kàddi ya rapp ko lukkat ko taal ko ba mu set ah bu dee dugub nga naa def nga daal di koy faru ji ko noonu te fekk nawet bi ñëwagul ah ah waaw kay dafa tool ba mu jekk rek dafa doxal ci bar ngoon bu fekkee da ngaa ji leneen nga bàyyi ba mu taw nag fekk tool ba set na nga ñëw bay gis nga misaal moom moom la yàlla joxe rek wala bayalu tayyibu yaxruju min butni rabbi jigéen ji da ngaa yaakaar day jóge ba lay ñëw rek da nga da nga am doom rek doom ji ah waay waay ndax dana du yombeewul noonu déedéet am na yoo xamante ni yu cher la ala inna ala allah waaliya taw jigéen ji sonn toroxal boppam nangu luñ nangu te muñ dinaa koy faral di wax soxna yi ma ne leen gis nga kër baay dafa am nguur amul mbaadoo la kër baay daa amul nguur amul mbaadoo la su seen yaay tey tey nangoo nekk mbaadoo la gi say doom bu ñu màggee ñoo nekk parce que xaw am seen diggante ci leer seen yaay day ñëw jër mbaadoo la gi ngir bu ay doomam màggee nekk buur yi waaye bu fekkee jigéen ji daa ñëw bëgg a jël nguur gi su ay doomam màggee la nga def lu muy jël parce que dafa xam ngeen moo tax nga gis jigéen yàgg a sonn bu ñëpp yërëm ko mu xëy soppeeku ba ñëpp ñeer moo tax ngeen di gis jigéen nekk ci ay bànneex ci donkaat xëy xëy ay doomam lakkal ku witt ba daanaka jur xamurul mustafira moo tax xëy ji fekk nag suñu borom ay def dana dafa kéen saane loolu day faral di am de te gis nga lii ay léeb la yu mag yi wax waaye léeb yii moom du ay léeboon na ci léppoon waaye léeb la yu dëppoo jàngale yàlla tamit doon dañu doon xam loolu mooy li am de jigéen ñi faw bu sol nangul suñu borom góorgóorlu ah bu ko gëddee mu muñ buñ ko artalee mu muñ buñ ko waxee lu ko metti mu muñ ah jigéen daana toog mbaxal mu tàng jër ci kër gi dugal loxo du la xatt lu muy jax di ko xott fii ba suba ndaw si di ko jéggalu ko ci ndaw si li may wax nii am na de fii ba ginnaaw suba laa wax ndaw si di ko jéggalu baal ma baal ma téeméeri yoon xanaa dañ la baal ma kay dañ la baal naa la kay jeex na waaye pour war lañu loolu dëgg la ci ñun benn ñaar ñett tax sama jëf bërki dem yi maa ngi koy jéggal dama baal ma xëy suñu jigéen ñi ko yaakaar ñu jéggal la ñaari yoon kare ñaar moo tax it njur mi mel ni mel rek ñu gis koo xamante ni borom këram da koy harcelé këdd wax wax mu sëgg fi mu sëgg rek xanaa di jéggalu rek loolu war ngeen gis yi ngeen gis jigéen di daaw jaar ci seen borom këram daaw seen jaay sànq bi sëriñ bi yooyu ngay dégg loolu ay mbir la yoo xam ni orma la war ñu doon joxe waaye jigéen yoo xam ne dafa daan ñaaral diis kan bëgg nekk buur ci kër gi def ko comme ni ko olof waxee jabari naan ndax xam ni lekk naan ataaya tëdd kese ah bu la yàlla mayee lu baax kay xanaa daa xëy yàlla yàlla xam moom kër yi lu baax la waaye dina ne yaakaar de kon Abdoulaye ibn Abbas yaayam dafa liggéey kër baayam xam ngeen ni yii ma wax yëpp boo ko xoolee jigéen ju liggéey moo koy def jigéen ju liggéey moo koy def gis nga tomb bii tomb la boo xam ne bu ngeen seetloo dugub si ñuy def yëpp bu ma ci yëg parce que lii mooy li ñuy dund tey moo tax lii mooy li ñuy dund jigéen ñi xam nañ ko góor ñi xam nañ ko gën a nangoonte gi nag am na nag malgré rek tekkiwul ni lépp daa yàqu na yu baax a ngi fi de yu baax a ngi fi yu nangu ñu ngi fi yoo xamante ni la way comme xari yàlla yooyu dafay def jeexintal ci li ci li muy am ndax al baladu tayyib yaxruju nabatuhu bi idni rabbi te da di ndam da di da di ndam ak succès pour nit ki mën a jël lu baax mooy borom këram gërëm la xam ngeen ni sa borom faatu sa borom kër bi di la seedal te mosu ñu wax loolu lu dul marathon loolu loolu loolu loolu diplôme nit yóbbu na yóbbu na ci kanam suñu borom diplôme àddina bu ko gën a rëy amul parce que boo faatoo say jaamu yàlla wér signature bi lay dugal àjjana xam ngeen bu koy diñe sa borom ko ayu mamraatin maat wa zawjuha anha anha boo faatoo ñu génne azaka yi teg ñu ne baax na génne weeru koor yi bari ñu ne baax na daara jàng alquran ñu ne waaw léegi am na signature bu def de ñu nga léeg-léeg ngay di gis dossier bi di gis bi yëpp yéem ñu ne préfet ko war a si mënoo mënoo si bëgg bëgg bëgg signature boobu ngay xeeb bu ñëwut te wutiwaat rek dafay def doo déposé te defee bu ñu xoolee say jaamu yàlla moom yegg nañu ni ana jëkkër ji la si ñun fekk jëkkër ji moom day ku kontaan dana si te loolu loolu jigéen ji war na ko bàyyi xel day daan baax sa borom kër naa te yàlla baax na yàlla yàlla yërëm day am foofu loolu du ndam de déedéet yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam su ngeen amee néew seeni leen lu baax parce que li ngeen di wax malaaka yi ciy def mais dina leen amin suñu borom day àq ca moom ci su fekkee ñu koy wax ay jullit la ñu gëm yàlla la ñuy wax mu nekk dëgg ci leen faatu ba borom kër ni yàlla yàlla yërëm ko rek ko yàlla yàlla yàlla yërëm ko rek tuuti na dee tuuti na boobu dee na la seedeel lu baax lu baax loolu day dalal xelu nit ñi te loolu yonent bi moo ko jàngale xuulul xayra taw wax leen lu baax loolu am ci lu baax rek wax ko buy dund moom ngay jàll waaye mu faatoo ba am kon amul fadl ni gën a liggéey bu rëy këram ba borom këram di Abbas nangul ko déggal ko muñal ko déggal ko muñal ko nangul ko suñu borom wërsëgalee yi muy doom yu barkeel te gis ngeen ko ci saxaaba yaat yi nga xam ne ñoo ñu ci des noonu umul fadl nee na moom képp dafa am kéemtaan koo xamante ni dal na ko mooy yàlla dafa def bi nga xamante ni toll na diggante nee na damaa romb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ma rombee yonente bi ma xool yonente bi yonente bi muuñu reetaan di ah umul fadl yow de moom parce que laa dara xam doom ju góor yoo xamante ni góore lay doon allahu akbar umul fadl nee na ma ne ko góor saaw ma ne ko insha allah góor lay amee nga yonente bi nag moom mu ayyadun min amri rabbil alamin mu ne ko innaka xaamilun bi gulaam ah yow kat li nga nar a jur du jigéen de góor lay doon de góore nga nar a jur de ah allahu akbar mu ne yonent bi daal di koy ñaanal alayhi salaatu wa salaam nee na bi mu amee doom mu daal di koy indi mu ne ko liggéey ko abdullah mooy abdullah ibn abbas yonent bi jël ko daal di koy defal lu ñuy tuddee toqantal toqantal mooy jël tàndarma yéy ko jox ko mu nekk jeex na amul fatiha amul falaq amul yaasin amul jéem a dem saafara amul yooyu yëpp amul ci amul takk amul tekki loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di muuñ bi mu muuñee daal di ñëw ci ki nga xamante ni moom mooy Abbas nee na bi mu yegsee ci Abbas daal di commencé daal ne ay waay waay maa baax waay waay Abbas ni ko waay bàyyi li ngay wax waay yooyu mu jëru dox mu ne ko aan kay danaa ko wax ndax ku am bàyyi bi baax bi saa bàyyi lii ni ñu wax loolu nag tawaadu la yow li ngay xam lay yokkaam ci mooy sama ndijaay bu am ndijaay ju baaxee ni ndijaay ji ñëwal bu am ndijaay ju mel ni sama ndijaay rek ñëwal wane loolu ci li ci digg ñaari mbir mooy tawaatoo ak nabi sallallahu alayhi wa sallam ñaari mooy allahu akbar wallahi daf doon kafal ay saxaaba da doon kaf nit la woon koo xamante ni noom ngaaral fël comme ni ko sama gars yi dafay kenn xam sax fooy sangoo ana yeneen bi ñu ne ma nga léeg-léeg moom la ñu wural moom la yéen doy day sax allahu akbar ana yeneen bi ñu ne moom ngeen ay dëri dal ya day dal ana yeneen bi ñu ne moom nga léeg-léeg dal ko xam dal dal daa xay daal sallallahu alayhi wa sallam dellu ci kitab sunna bi doon leen ci melo doon leen ci melo loolu la Abubakar melo ñu xëy sal ko amirul mu'minin mu xëy nàppum dàmbaam dem ca marché ba après nga xam ba ko bañ a ne ko mukk dem marché la yow li la doon am na loo ci boole ma ne ko lu may def dama dem mu ci lu may liggéey allo teg seen gars yi tey koo xam ne yow daanaka yow balaa ñu laa far sax da ngay commencé njëkkat ni ko nga xaakada segam sax al lay tudd nee na julli nii di bari wallahi Abubakar bu ñu ko bàyyi woon mu xëy dem marché yenu dàmbaam liggéey après lu xew ne amiru mu daa tee nga xëy dem liggéey Amar ibn Xattaab day jékki-jékki la mu yàgg mu dal di jub dem ca àll ba root paanab ndox daggañ dagga ji ñëw mu takk ci yëre yi tooyal ko ak fii takk suuf mu ñëw waaye Omar li ngay def ñu ne la dama jékki-jékki sama bakkat bi naan ma Omar wala gars yi rek ñii di ñu ngi jóge dëkk sàngam ñii jóge dëkk sàngam ñun ñëpp di ñëw fi ci yow rek liñ ci amirul mu'minin mu ne sama bakkat bi commencé dox dox ma ne ko xaaral ma yenn la paat ndox nga dem safara waaw allahu akbar dem fekk Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarrah ca Baytul Maqdis Omar ko jooloon la macha allah mu tële am doole mu war ci mbaam mi tànk laa bay jëlee gars yi naan ko way way Omar yow wàcc bi mu ne ko Abu Ubayda yaa ma bett yow foogoon naa ne ku ne may wax affaire yi ba mu des yow pour war li mooy lan samay tànk téye ko lu ci nekk allahu akbar gars yi di ko ci nar a war mbaam dee moo la ko dëgër mbaam moom ku ko ci nar a war moom daa ci nekk kon mi ngi noonu moom Abdullah ibn Abbas yàlla war a dëggal ci nga xamante ni moom mooy Abbas yonente bi daal di koy ñaanal allahumma faqihu fi diin wa allimhu ta'wil suñu borom yàlla na ko déglu yàlla na ko déglu diine te xamloo ko fii moom Abdullah ibn Abbas والراسخون في العلم يقولون آمنا به mu yëkkati loxo mi ana min الراسخين في العلم man ca laa bokk subhanallah dañoo xamoon nañ lan mooy tiital te daawu tiital yàlla ñi muy tagg ni ñoom ñoo ñu góor ci xam-xam nga xam ni yi yi jafee ci xam ci alquran ñoom dañ koy xam mu ne man ca laa ko Abdullah ibn Abbas baxarul umma wa tarjumaan alquran kon ñu ngi jéem a taxaw foofu ci Abdullah ibn Abbas xëy na bind bii di ñëw danañ wax ngëneel yi nga xamante ni am na ko moom Abdullah ibn Abbas ak yi nga xamante ni mooy jagoo yi nga xam ne yonent bi jagleel na ko sallallahu alayhi wa sallam ci ñaan ak li nga xamante ni mooy góorgóorlu bay juram ñu ngi ñaan suñu borom mu delloo ci umma bi ca na nga xamante ni noonu la ñu njëkk ña meloon te yaayee ci ndaw ñi ci baay yi ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy gone yi ñu ngi ñaan yàlla ñu